di ci informé vous avez toujours raison d'avoir choisi FIPIEL euh, li nga xam ne moom moo di topp kaa parce que c'est la meilleure émission euh, ci euh, la toile alors Jimbori on démarre pare ngeen ñu ñu kaakaay. waaw ñu kaakaay quoi. d' accord nañ ko commencé ak euh, ak la première nuit en prison de Ousmane Sonko euh, euh, for naa ci weeyu bay si si am ma ay source ñu wax que ni moom Ousmane Sonko bi muy dugg ci prison bu Sébi Xotaan dañ ko doon teerew ak ay alxuraan di ko ko jàngal ba ni muy duggee ci biir prison bi waaye bi muy duggee ci biir prison bi moom njiital Pastef li mu njëkk wax moom mooy alhamdulillah sant naa yàlla julli ci yonent bi sant na ay ñaari way juróom waaye tamit sant ñaari soxnaam gërëm tamit la population sénégalaise sant bu baax a baax peuple bi daal di def ñaari rakka ah, ah, ci l'islam ma jàng ci ñu ne bu la suñu borom tegee nattu da ngay def ñaari rakka benn bi nga jox ko addiyee suñu borom beneen bi nga def ko addiyee rasulillah gën ji mbindeef moom Ousmane Sonko loolu la njëkk def ci prison bu euh, Sébikotane euh, première nii bu Ousmane Sonko euh, histoire jàngale ni moom mooy njëkk doon politicien bu dugg ci prison ñu ko ñu dalale ko ak ay ay ay alxuraanul karim mm-hmm. Ousmane Sonko mi ngi Sébikotane mm-hmm. waa kii euh, daañ naar mm-hmm. xam nga euh, Ousmane Sonko mm-hmm. euh, luñ ci mën a jànge ak lu luñ ci mën a wax mm-hmm. Ousmane julit la pire ba pare Ousmane xam nga julit lan la il faut nga am dara loo xam ne saa bu la nit ñi tegee bët yaa ngi dégg waaw mën di fàttaliku arxuraan wala ñuy fàttaliku dara mais moom saa boo ko gisee wala saa bu doxee wala saa bu waxee nga fàttaliku ak jullit ba pare Ousmane dugg euh, dugg euh, kasoom Sébikotane mhm. yaa ngi dégg est-ce que xam nga dafa am lu mu symboliser lu ngand dafa am lu mu symboliser dafa am lu muy symboliser mhm. Ousmane Sonko gis nga bu nekk dugg na fi kaso mais dugg Ousmane kaso ak yeneen dugg kaso yi pour man si sama jàngat bu ndaw mhm. nekkul benn lu tax nekkul benn xoola wallahi xoola ma wax la benn affaire. allez-y que xam nga nit ñu baax ñi nga xam ni. ñoo ñooy représentant yàlla ci kaw suuf. Hmm. su fekkee yàlla may na la gis-gis da ngay gis yàlla takkal leen ay drapo drapo yi di def nii. Mm-hmm. xoola da ngay jékki ma jox la exemple da ngay gis léeg nga gis ko xam ni day dem ba manqué di jéem a manqué respect Serigne Touba di jéem a manqué respect El Hadj xam nga lu tax ñooñu gisuñu drapo bi. Hmm. xam nga am na ñoo xam ne amuñu gis-gisu gis ñooñu. Hmm. parce que nit ku baax pour nga gis ko yow il faut yow nga xam lan mooy mbaax ba pare. xanaa am loo yow boo baaxul mënoo gis ku baax. xanaa am loo Ousmane Sonko fu mu toll nii ñi koy gis. ak ñi koy gis. Hmm. diggante ñi koy gis ak ñi ko gisul. dafa am lu nekk benn kiiraay bu nekk seen diggante. xoola Ousmane fee mu nekk na la sebi xutaan yaa ngi dégg. xoola billaahi wallaahi wa tallaahi xoola gor dëgg mi ngi sébi xutaan d'abord ah mhm. jàmbaara nga sébi xutaan tëdd ku bëgg réew mi dëgg mën nga sébi xutaan tëdd te su ma la waxee ne la jàmbaar dëgg moo tëdd sébi xutaan ma nga sébi xutaan di nelaw mhm. gaynde dëgg ma nga sébi xutaan di nelaw mhm. ku bëgg réew mi mi nga sébi xutaan di nelaw élément déclencheur ma nga sébi xutaan di nelaw xoola war nga ko gëm xam nga fan nga koy gëmee. xoola mhm. Ousmane Sonko dafa ñëw tay am na ñoo xam ni fi mu nekk buñ fa nekkoon du ñu yegg si fii. xoola mhm. ku jege xaalis ku xam ne sa yaay nee na la bàyyil politique say mbokk ne la bàyyil politique nga ne bàyyiw ma ko ngir askan bi. Mhm. te ba pare mu mu topp loolu ba tey ci fu mu toll dafa ne sénégalais yi lépp lu ma mën a nekk yéen a tax yéen a tax ma nekk ci waaw. loolu la wax quoi. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ba pare gis nga usmaan Sonko foofu mu dugg noonu tëdd. voilà bu ca kanamee nga xam ni nekkam foofu du ko réccu. xoola na ñëpp bind gis nga Ousmane Sonko ah, dugub kasoom. waaw dugub kasoom ni mu mel ci coow. génnu kasoom adduna bi ñoo koy gunge mu génn. dëgg la. wallaahi xoola waxewu ma ko pour dara. xam nga man bul jooy nag saxal dafa fees Macky Sall Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñun ñëpp ay sénégalais lañ est-ce xam nga loolu. ba pare dëkk bi dafa am benn côté boo xam ni moo xaw a yëngal dëkk bi loolu moo metti hmm. man toog naa fii ma ne la justice su senegal su fekkoon ne nit la dama koy wax mu defar toogaayam parce que boo nekkee ci réew moo xam ni seeni carte d'identité non signé moo ci ëpp. Hmm. nan nga war a def ak ñoom hmm. ma ni. boo wàññee genn wàllu dëkk bi seeni carte d'identité non signé moo ci nekk c'est-à-dire jànguñu léegi ñooñu am na am na benn loi boo xam ne boo bëggee yëkkati pour teg ko seen kaw bëgg leen koo gëmloo dafa am noo koy publicité ba ñoom ñu gëm la mais am na noo xam ne boo ko ñëwee duñ la gëm ba pare dëkk bi day gën a metti d'accord est-ce que grève de faim bi mu entamé nii c'est pas un parce que am na ñu bëri ci sénégalais yi ànd ak moom sax. Mhm. di wax naan président bu mu dugg ci grève de la fin boobu parce que sax dem na ba atteindre li nga xam ne moom moo di wér-gu-yaramam parce que Ousmane as dafa asthmatique te euh, ci ay sources yi de clair wax nañ que ni euh, dafa laaj ñu jox ko ay médicaments yooyu ñuy pompe pour boo asthmawee. Mhm. mais euh, mënu ci jot moom nag nee na du jël. Euh, garab yi nga xam ne moom da nga koo jox lu dul garabam la lay jël est-ce que c'est mhm. pas un peu très tôt pour muy def xam nga tey asma su fekkante ne am na garab yoo xam ne garabi boppam la mm. su ma soñoon ñu jox ko garab c'est asma moom bu fekkante ne taw bi dafa toll fii asthmatique yëpp ay metti day day metti parce que fekk bàq bi ci kaw doo mën a nooy mm. mais boo utee ñetti xobu limon rek baxal ko naan ko def si suukar naan ko cay docteur Jimbori mais est-ce que teelul quoi muy grève de la faim. non mais gis nañ Pape Alé Niang def na ko journaliste la gis nañ yeneen détenus politiques comme on dit ñoom aussi commencé nañ def grève de la faim. waaw mais xam nga Ousmane benn affaire nit kese la mais man dama jàpp ni Ousmane Sonko ñi ko wóoroon di ay boroom xalaat dafa dañoo xaw a des. Hmm. su dee mi ngi leen doon déglu. man su ma ko doon digal dend ak moom duma ko digal muy def ay grève dafee affaire yooyu di bañ a lekk ak nangam nangam mm, mm. voilà Ousmane na calculer cinquante cinq jours am na ñu taxaw buntu këram dara doxul da amul lu dox digganteem ak gaay yi te gaay yi ñu mënuñu koo jël mm-hmm. est-ce xamoon na kan moo dox digganteem ak ñi nga xam ne ñu ngi woon buntu këram te mënuñu ko woon jàpp mm-hmm. xam na ko kooku yàlla la mm-hmm. yàlla moomu moo dindi loolu dogal ci moom ñu jàpp ko moom yóbbu ko su ma sañoon man mu lekk mu naan am na loo xam ne nii wax dëgg yàlla man ci yëg-yëg te ma yëg ko xoola su ma doon sonko mu lekk mu naan xoola sonko bi mu duggee eh, prison Sébikotane si la daan dëgg hmm. si la daan mais ñi wax naan daanu na nag parce que da doon wax du mës a dugg kaso da doon wax que ni euh, président du ko mës a kaso euh, gis nañ sax yenn ci ay journaux génn bind que nii ne Ousmane Sonko soumettre na. voilà maanaam nangu na ni daanu la. xoola demal laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko sax xam na ni dina dem foofu. Hmm. d'accord Ousmane Sonko moom ci boppam. Hmm. moom xam na ni dina dem foofu. xam ni xoola. xam hmm. buñ ko yóbboo foofu. waaw yaa ngi dégg mu baax ci moom moo tax mu wax ko. mais Ousmane waxeewul woon dool xoola lii nii lii nii lii nii yaa ngi dégg ba pare ma wax la benn affaire xam nga Ousmane Sonko du ngaaka de yàlla képp ku mu téeñ dina la yan waaw du dëgg coow li nii ak lu mu si munti demee Ousmane attan na ko attan na coow li mais coow li dafa metti xam nga ci kan moo attanul coow li mhm. ki nga xam ne dangaa yëkkati dara loo xam ne yow ku la ko tegoon doo ko àttan nga koy teg sa moroomu jullit kooku àttanut coow de parce que dama gis ni ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mm-hmm. mais ñun ñëpp xarit lañ mais bu guddi jotee ku nekk tëddi sa néeg dama gis ni bis biñ koy àtte moom. Mm. autoroute à péage bi dañ kaa bàyyi kenn fayul. lan moo tax yow nga foo xam ne yow war a nga fa mën a amee xaalis nga ni ñooñu ñooñu ñu nga ne leen bu leen fa taxaw ngeen dem seen yoon kon dafa mel ni da ruux gaynde daw bàyyi ko nit ñi Euh. ma ni li nga xam ne nii comme autoroute à péage bi nga mënul contrôler nit ñi di fa jaar di fay est-ce que mun nga contrôler Tata mun nga ko contrôler waxal bële yow danga fa bàyyi xaalis bi dem sa yoon est que mun nga contrôler Tata ba pare xeex bi nii mm. est xam nga ban façon xeex la Sénégal di xeex nii ban xeex la xoola xeexu vidéo la ñuy xeex xeex bi nii xeexu vidéo la. Mhm. nit day fekk événement boo xam ne passé na mu dagg ci dara ni fii a ngi tàkk. d'accord nit ñëwaat filmer foofu mu naan mi ngi tàkk sànni ko ne ko waxoo dëgg. gis nga joxante boobu ñuy joxante vidéo yi. Mhm. am na benn am na benn musiba bu mu mën a jur. d'accord euh, euh, politiquement parlant wala yow si soit euh, ci si yow ci sa boppam techniquement parlant est-ce que njot nga ni Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi ñu jëm gëm nga ni dina dina ci bokk. non ma wax la dara. ma hmm. wax la dara parce am na ñu génn di wax naan Ousmane day bokk te day doon président. non xaaral ma wax la dara xam nga man li ma gëm nii. nii hmm. nii nii. Hmm. xam naa ni Ousmane Sonko si boppam. waaw pour man dina bokk ci élection yi. ah bon. Mhm. ak ñu ko jàppee nii yóbbu ko prison. def ko sous mandat de dépôt te sous mandat lu mu dee dee benn 6 mois la peut-être. xam nga euh, tay ma wax la benn affaire. Mhm. même buy jógee ci prison bi. xam buy nekk ci prison bi. nekk candidat dina am. ba pare xam nga coow li lan moo ko xaw a lan moo ko xaw a fay. ba nit ñi génn ñu coow. waaw parce que bopp nit ñi li ci nekkoon dëgg-dëgg dafa mel ni Macky daf ko dégg. muy mooy nit yëpp dañ jàppoon ni mag saal day def troisième mandat. bi mu nee duma def troisième mandat moo tax ñëpp nag li nekkoon seen dënn yi génn. parce que loolu moo doon pression bi gën a garaaw. Hmm, daa désamorcer bombe. waa kay. Hmm. loolu moo tax gars yi ñoom. Euh, euh, mais là tu as mu sedd. parce que nii mu calmé nii peut-être loolu mooy désamorcer. ok loolu moo doon loolu moo doon gis nga bu affaire coow li bu doonoon nit ruu gi moo moo nekkoon ru bi ko doon doxal moo doon. troisième mandat bi. waaw parce que bu tombé waroon Macky ne damay bokk ci élection yi. day gën a indi coow waaw day gën a indi coow mais moo tax voilà. xam nga tey Macky Sall dafa effacé woon programme politique te yëgu ko. dëgg la est ce que xam nga Macky Sall pour man man sama xalaat. Mhm. su bàyyi woon Ousmane Sonko këram. bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko këram jàppuñu ko. Mhm. après élection yi dina xaw a ma metti ci Ousmane parce que Ousmane foog mu indiwaat beneen communication bu bokkul ak ni mu daan communiquer. est xam nga loolu. bu baax mais dañoo bindaat programme bi nii booy bi Macky Sall ne du ma def troisième mandat programme politique dafa effacé wu woon. Mhm. ñoom ñëpp ñi doon wax ci politique xam nga lan lañ doon wax amadu maam Diop lay teg amadu Ba lay teg loolu moo nekkoon seen débat yéen. question de soi quoi mais bi nga xamee ni nii jàpp nañu Ousmane Sonko dañoo bindaat. programme politique gisoo tey képp ku ne kenn ku si nekk sa xalaat yaa ngi koy développé nit ñi di ko déglu. Mm-hmm. Euh, après affaire politique bi nekkatul benn xalaat mais fan yee benn xalaat dong la woon diw lay teg diw du ko teg diw lay teg xam nga lu ma la wax. mais bi bu doon man du ma bindaat programme bi. d'accord kon ma jàpp ni daal yow bokk nga ci ñi gëm ñi Ousmane Sonko mën na bokk ci élection yi. non xam nga Ousmane Sonko nekkul ci ay kayit mm-hmm. ba du bokk. bu doon damaa gis kayitam turam ci kayit kese. dama naan usmaan sonk mii du bokk. mais Ousmane Sonko damaa gis ñu bind turam fu dul fu dul ci kayit te foofu kuñ fa bind sa tur. Hmm. yaakaar naa ni fekk dañu fa. Hmm. réew mi dina tegu si sa loxo boo moytuwul. d' accord parce que si xolu nit ñi la ko yàlla bind. d' accord ko ci kayit. d' accord jërëjëf merci beaucoup Jimbori alors Adji Mass yow tamit du ñàkk dinga nga ci am analyse bu pertinent comme Jimbori euh, euh, moom mooy la première nuit en prison de Ousmane Sonko ñu bëri di wax naan bi ñu koy teeru dañ ko teeral comme buur ñii di ko teeree ak euh, li nga xam ne moom moo di alxuraanul karim naka nga gisee guddi gu njëkk bu Ousmane Sonko. comme ni ko ñëpp gisee àdduna moom defe naa ni moom moom fii la bët yam ma laa ko mën a wax koo xamante ne nii <laughs> topp ko ba jusqu'au comme ni ma la ko mën a waxee. Mhm. lu ne jaar na fi. jéem nañ lu nekk ba nii ça ça va pas fi mu moom moom nee naa ñi faral opposition opposition bi lépp pareil ça va pa pour le dire vrai parce que am na leen loo xamante ni c'est c'est très moche même. Mm-hmm. parce que defe naa ne nit ki nga tiim ko na def yenn nii vis-à-vis ba àdduna wën nga club ñëpp di seetlu façon bii. Mm-hmm. trop c'est trop nan xool seen bopp xool li ñuy def te xam ne yii yëfi jamono la. Mm-hmm. am na ñu ñu fi gën fuuf dañ fi jaar ba jàll. jaar fi avec la grande porte génn fi ba tey seen jaloore du fay am na yenn yu nga xamante ni daf ko jarul rawatina koo xamante ni tey jii. Hmm. boo ko nattoon ci sa bopp ñu teg la ko du la neex nga àttana jëlul taxaw teg ko ci teg ko ci nit nga foog ni loolu dina la jig du la jig. Hmm. am na leen loo nga xam ne dafa metti waxtaan dëgg cëla la ku wax ne yow yaa ngi ci sa sécurité sax nit ñi sax fi mu nekk nii fier fieratuñ ci seen bopp. Hmm. fieratuñ seen bopp on se parce que ay lii loo xamante ni yow dangay xool yow yow sañoo génn yow sañoo manifester yow sañoo taxaw wax dëgg. Hmm. yow yow sañoo parparloo mais ban Sénégal la nekk ban Sénégal la nekk lii la lii lii lii nañ soxla woon góor. Hmm. lii lañ soxla woon. ñun soxlawuñu lii. soxlawuñu lii ndaxte boo xoolee suñu mag yu baax yi jaar nañ fii ba jàll. waaye nag tuuma ak li nga xamante ni moom mooy coono gor nañ koy teg. Hmm. ndaxte nag nee naa ko lii. sa li li ñu waxoon ni président bis bu mu désister saa dina dugg dina bokk ci li nga xamante ne moo di histoire Sénégal tey nii lii nga xamante ni Sonko def na ko tamit dina bokk ci histoire Sénégal de. Mm-hmm. parce que nag il est la seule unique personne boo xamante ni ci ci pouvoir ci li nga xamante ni moo di politique. Mm-hmm. mu am fi jaloore bu toll nii. Mm-hmm. ndaxte dugal la biir dugal di la dem di la dugal biir prison nit ñi taxaw di jooy. ñi taxaw di di jàng alxuraan. ñi taxaw di la di la taril nga taxaw santal sa bopp borom yàlla. noonu yëpp taxaw nga taxaw àttana dem toog <laughs> am na leen loo xamante ne bu ko nit bëggee sax yàlla du ko def. Mm-hmm. nan def nank te jéem a raxas xol yi ba mu set te jéem a yenn nit ñi jàmm ak salaam. Mm. te jéem def lu baax. mais ak bokk nga ci ñi gëm ni Ousmane peut-être ci élection yi ñu jëm dina ci bokk. parce que am na ñuy def analyse. 6 mois de 6 mois et loolu mënut a nekk. loolu mun a nekk waaye xamal xam nga xam nga affaire yi tax man dara méttiwu ma ci parce que Serigne Touba gënoon méttile tey tubaab bi jaar na ak moom fu nekk. Mm-hmm. bi mu taxawee ni ko carrément tey suñu bato bii doo ci julli dafa ni du ma tooñ sama borom te du ma tooñ sama borom te waxtu julli bi jot na mm. ba mu tàllalee der bi yàlla da koo teg ci digg géej gi mu julli tey ñëpp di koy santale yàlla suñu borom tey lii waral tubaari kàlla foo nee sëriñ tubaar nit ñëpp daanu leer mm-hmm. tubaari kàlla n'a rien à voir à la politique sax parce que xamante ni faaw ñu dëkk xalaatee bi xamante ne nii mooy loolu mhm. mais dañu bëgg a wax ni euh, euh, Sonko boo bëggee dégg dëgg métti na ba fu métti di yam mhm. tey ku ko teg ci sa bopp rek doo ko attan mhm. effectivement parce que buumu jaam gi dog nañ ko buumu jaam gi dañ koo dog bu yàgg lii c'est trop c'est trop te waaye rek man dama koy teg rek ni ni ni nguuru yàlla rek moo dul jeex man fa laa ko teg parce que defe naa président Senghor jaar na fa ba jàll. waaw Abdou Diouf jaar na fa jàll Ablaye Wade jaar na fa jàll. Hmm. tey suñu président bii la fi yàlla di teg. tey tamit tubaarikàlla yi tamit comme nee na bàyyi na ëllëg ci biir ku fi yàlla di teg rek nee naa ko na sédd bu baax a baax a baax a baax diggante ma boromam. ndax nag première guddi prison lay toog di jooy waaye ku du soddul première guddi bàmmeel kooku di nga xalaat premier jour prison. Hmm. li jëntuwuñu loolu fukki suñu loolu mais yërmande metti na. jàpp nga ni sa euh, ñiy wax que ni euh, président Ousmane Sonko ñi mu àndaloon ñëpp dañu ko sacrifié euh, gisuñ ki nga xam ne woon xalifa sàll mu yee ci yaab mi wax ci wala Barthélémy Dias mu yee ci yaab bi wax gisuñ ñi mu doon àndal yëpp kenn wax ci am ñu bëri di wax naan ñooñu. dañu sacrifié kii di Ousmane Sonko man loolu du ma ko tuddee sacrifié. Mm. tey bu ñu àndee ca làmb ja di bàkku ba daal di daanu jël. Mm-hmm. buñ ma daanee nga dal di dem nga sa yoon man damay xool damay xam ne ni nga toll nga def. Mm-hmm. tey doo jël sa jikko ni da nga koy inculter ci sama jikko ta nekk ma jël sama jikko bii tey ni dama koy inculter ci jimboor yi ta nekk ku ci nekk ni nga toll ngay def ni mu toll rek la defee barke yonent bi mm. niñ toll nañ defee léegi nañ seetaan d'accord ndax de toute façon mooy que ni moom moom lii moom jàngal na ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko àdduna ndax moment yi difficile yi boo ci nekkee ñi taxaw di la may support ñii taxaw di la dooleel ñii taxaw dina la encouragé taxaw di la jooyle mm-hmm. ñii taxaw bu méttee ñu métti bu taxawee ñu ñu taxaw moo tax patriote yu ay gaynde lañu patriote yi ay jàmbaar lañu dun daw xare moo xam muy neex moo Sonko muy métti ñoom a Sonko duñ daw dara waaye boo may tuddal Barthélémy di ma tuddal ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall ñu ñëkk ñu bokk ci làmb politique gi ah politique nag wax dëgg yàlla ak milieu euh, audiovisuel ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. ñoo bokk téyéer ñoo bokk ci si ayotese lañ waroon te defante lu baax waroon dafa waxante lu baax lan moo fa am toog di reetante kontaanuñu lan moo fa am ku fi jekk sa morom dam ba mu daanu daal di jékki lan moo fa am toog yàq koo xamante ne dangay toog ci daram nii di joo yàppam lii moo fi am kon nag bu ñoo ñu taxawee ñu tuddee ko war pour man duñu war nañu la nekk ci ñoom loolu nañ ma ne mm-hmm. nañ toll lañ def un point un trait waaye ña ko topp duñu daw du nu puus du nu découragé àdduna du leen jaral moo xam Ousmane di dundu tey wala ëllëg muy dem kaso ba tax na ñu bàyyi ko kon ñooñu ñu fi mu nekk nii ñooy ñoo xamante ni nii duñ la wor jamais ñooñu ñoom ñoo jaral.